salaamaaleykum mbokk internet yi tey ñu ngi dalal euh, coach Moussa Diatta nekk coach ci euh, équipe bu US Gorée donc coach ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay euh, waa Sénégal man Moussa Diatta entraîneur s sportif de Gorée mm-hmm. union sportive de Gorée. Mm-hmm. coach waaw ñu ñu tey moom émission bi dañ koy tëgg ci ñaari point yi démarré ci niveau au niveau local championnat bi après ñu dem ci CHAN bi. Euh, gis nañ ni instant yi championnat bi dawul dañ dem trêve euh, muy deuxième trêve bi ñuy joué ci ci ci ci bi ñuy bi ñuy observé ci ci début bi championnat bi commencé ba tey trêve yooyu noonu du leen sonal. waaw euh, trêve yooyu du suñu dinañu xaw a sonal mais aussi mënul ñàkk parce que soo seetloo première trêve bi coupe du monde moo waral ñu defoon ko te soo seetloon Sénégal monde bi yëpp presque dañu arrêté woon te Sénégal sa jéemoon na adapté wu tuuti. ba nga xamante ni xaw nañoo jouer tuuti ay quelques matchs euh, ñu conformé wu si euh, match équipe nationale yi concentré si équipe nationale yi mm. par contre deuxième trêve bi trêve bi nga xamante ni obliga obligatoirement dafa waroon a am li tax mu war a am parce que dañu ne dañuy jouer CHAN te CHAN lan mooy CHAN tey mooy coupe d'Afrique locale coupe d'Afrique bi nga xamante ni ñi ko ñi war a def dem si jongante bi mooy joueurs yi nga xamante ne ñu ngi football si championnat local mm. moo tax forcément dafa war a am trêve trêve boobu nag gudd na naam mais aussi day tax ñu jaay suñu championnat parce que tey lu tax na day jaay suñu championnat parce que tey tax na ba joueurs yi nga xamante ne ñu ngi joué suñu championnat bi ñu dem di jongante ak yeneen réew pour nit ñi mën leen a gis euh, loolu gëj nañ ko am trop trop trop parce que mun suñu suñuy xayma si fukki at ak ñaar amuñu woon euh, loolu mënuñu woon qualifié mais yàlla def ren ñu qualifié ci donc day xaw a jëmmal suñu football te beneen pàcc bi li ci neex tamit loolu si loolu mooy dégg nga ñi si compétition bi am nañu ay joueurs yi nga xamante ne déjà ñeneen gis nañ leen pour ñu jaay seen bopp moo tax nag ma ne trêve la bi nga xamante ne euh, lu lu yoon la pour mu am. naka ngeen koy dundee trêve bi. waaw euh, nuñ koy dundee gis nga euh, si dernier temps yi sax bëri na ay tournois yu ñu organisé par exemple ñun bokk nañ si benn tournoi bu ñu wooyee tournoi de l'amitié bi nga xamante ni Jaraaf la Pikine ak ñun. ñu joué ko ci Iba Mar Diop si trêve bi tamit joué nañu ay match amicaux yu bëri euh, gudd na naam mais tamit permettre nañu ñu def lu ñuy wooyee ay revue d'effectif xoolaat ñeneen ñi nga xamante ni euh, ñu ngi yoon si biir euh, équipe bi te amuñu woon temps xool leen bu baax. waaw bon xam naa loolu moom dina gën a contribuer ci équipe bi gën a jàpp gën a gën gën a nekk en forme mayonnaise bi gën a prendre instant yi gore gore moom mi ngi ci mi ngi ci sixième place. Euh, tey jii objectifu gore lan xam nga li may wax souvent ñun Gorée euh, dañu am benn projet bu ñu tënk bu ñu teg mhm. bi ma fa ñëwee ba léegi maa ngi ren sama ñetteelu at donc dama ñëw fekk fa benn équipe bi nga xamante ni ay xale ñoo fa nekkoon mhm. euh, ñoom ñu patient ñu may may dans le temps ñuy may liggéey ak ñoom donc ba léegi suñu objectif mooy jouer une place honorable dans le championnat parce que ay ndaw laa yi nga xamante ni yi may tàggat di ñuy progresser. ndànk-ndànk donc ñu ngi ci liggéey boobu ñu ngi koy tënk bu baax bu ñun teg suñu bopp yenn pression yi donc ñun suñu objectif mooy am benn place bu honorable dans ce championnat waaw ñu gis ne dernière journée bi moom <laughs> Goré def na affaire bu <laughs> def na def na affaire bu rëy gagné gagné na leader bi def bon en avant ci géejawaay donc loolu naka naka ngeen naka ngeen dundee match boobu noonu waaw xam nga li may wax rek euh, football euh, ñun dañu tàggat suñu suñu suñu joueurs yi pour mën a affronter match yëpp donc ñu dañu jël match par match amuñu fixation ci adversaire li may wax souvent man duma ma adapté aussi équipe man damay liggéey sama liggéey ci projet laa nekk di liggéey nag di dem dañ ciy dem ndànk sans def bruit moo tax nag li may wax nañu nekk am les la tête sur les épaules comme tubaab bi ni mu koy waxee ñu liggéey pour dem progressivement mhm. d'accord ñu ñu dem ci deuxième point bi muy CHAN bi que euh, Sénégal dafay jouer tey final euh, noo gisee d'abord euh, kii bi équipe bi équipe bi noo ko gisee déjà. waaw xam nga su ñuy wax ci CHAN man dama bëgg ñu delloo ci d'abord contexte bi d'abord contexte bi mooy Sénégal toog na lu yàgg ay diir yu yàgg yàgg yàgg demul CHAN te loolu lan moo ko indi man je pense que problème organisation la woon parce que bu njëkk bu ñu daan dem CHAN dañu amoon benn centre bu ñuy woowee CNEPS de Thiès CNEPS boobu moo doon regrouper joueurs yi joueurs locaux yi ñu ci tàggat seen yaram dem ay regroupement yu ñuy woowee regroupement périodique. mais après loolu dafa dagg bi loolu daggee nag dañu doon def li ñu woy pilotage à vie da ngay jékki saay une semaine deux semaines ñu jéem a defar benn équipe mu dem du ñu qualifié mais bi avènement centre yi ñëwee tubaab jalaw ak gëréew dafa permettre la direction technique ak fédération ñu teg en place ay pro ay projet di teel a jóg ci sélection yi sélection yi di dem ay regroupement di def ay regroupement périodique loolu moo andi liggéey bi soo seetloo tey du fruit hasard parce que yaa daaw xaw ma daaw géej équipe bi demoon na tournoi Afrique du Sud ñu joué fa ñëw mais demoon na ba benn instant joueur yu bëri am contrat ñu dem mais regroupement yi continuer ak Pape Thiaw fédération jox ko confiance direction technique bi jàppale ko appuyer ko mu liggéey liggéey liggéey ba tey mu am groupe bi donc groupe bi dañ ko togg ba mu ñor bi mu ñoree nag dem ci qualifié bi mu qualifié egg fële di jouer soo seetloo progrès bi ci nekk d'abord on a joué ci match de poule les trois premiers matchs trois premiers matchs match bu njëkk bi sur le plan de l'organisation d'abord lay njëkk wax soo seetloo c'est une équipe bi nga xamante ni day jouer ak ay variantes variantes yi mooy premier match bi on a joué avec une défense à trois trois cinq deux ñu def match bu rëy nit ñi di ci coow deuxième match bi ñëw ñu joué avec une défense à quatre troisième match bi ñëw ñu joué avec une à quatre ce qui veut dire que tey suñuy jàngat am na une benn progrès bi nga xamante ni euh, au niveau des entraîneurs si ay côté formation ak yooyu bu am. Sénégal parce que amuñu dara lu ñuy envier ñenn nit ñi mhm. euh, équipe bi joué def pratiquement si ñetti match yooyu benn match bu moyen la def mais yeneen ñaari match yëpp ñëpp nangu nañu ni équipe bi vraiment dafa wane boppam jaay boppam vraiment sur tous les plans sur le plan de l'organisation sur le plan de la préparation physique léegi lenn la ñu waroon def mooy l'efficacité au niveau devant mhm. mais loolu tamit je me di que toujours ay projet la ñu liggéey ci bu baax ñu qualifié tey nag demi bi li may wax on a vu Sénégal bi nga xamante ne encore boo ne beneen ka xar kanam bu bees def benn match bu héroïque sur le plan de l'organisation sur le plan physique et benn faille moo ci amoon mooy efficacité parce que mën nañu dugal bii yu bëri léegi nag tey dañuy jouer ak équipe bi nga xamante ni mooy l'équipe organisateur mooy le pays organisateur mooy kan Algérie mooy c'est-à-dire équipe bu gën a baax ci tournoi bi te Algérie boobu tey nu mu gënee baax ci tournoi bi parce que encaissé wul but si li ma statistique yi ma def mhm. Sénégal au moins encaissé na benn wala je ñaari bi Algérie bi ñu war a joué tey lu ñu war a def lu ñu war a def mooy euh, am taxawaay bu baax d'abord mhm. mooy taxawaay bi mooy organisation bi beneen bi mooy détermination bi c'est-à-dire naka la ñuy animer suñu jeu ba tax na ni gis nga tey su may jël te damay citer nommément parce que day dama suivre équipe bi xam joueurs yi ci nekk. Mhm. tey ñu jëlee suñu jëlee suñu 4-3-3 bi ñuy joué nga ñëw derrière am Sidibé ak Sané mhm. li ma leen di wax mooy sur le plan défensif pour ñu xam d' abord ni défenseur lañu d' abord def seen tâche défensive rester yéeg bi c' est pas décrété su ko waree nañu dem mais au niveau de la charnière centrale. entre Cheikhou ak euh, Ousmane qu'il joue juste parce que je dis que souvent un défenseur ne joue pas au feeling un défenseur c'est la concentration un défenseur c'est la constance un défenseur c'est la rigueur suñu ñett ñeent ñooñu suñu defee li ñu war a def mais dama fàttee góol bi parce que aussi Algérie autant ils ont une très bonne équipe autant on a un très bon gardien parce que biu caaxaan du ko dugg qu'il soit présent qu'il soit déterminé qu'il soit engagé à communiquer avec son mais devant Ousmane Kane mi joué six mi nga xamante mooy essuie-glace bi moom su ma nekkoon tey place su Pape Thiaw li ma koy njëkk wax Ousmane durant tout le match bul gën kanam défense bi parce que yaay équilibre défense bi yaay protéger défense bi yaa fay nekk pour def lu ñuy woowee essuie-glace loolu su ko defee ak souvent su latéral bi yéegee mu basculer un peu pour rétablir l'équilibre su ko Ousmane defee danañu am une défense stable mais stabilité défense boobu tamit mu ngi dem si rôlu Lamine Camara ak Moussa Ndiaye parce que Lamine ak Moussa seen jeu mooy lan ils jouent il sont relayeurs donc parfois quand on a le ballon eux ils doivent prendre la profondeur dañu war a jël profondeur bi mais dès qu'on le ballon seen taxawaay dafa am solo mooy ni ñu war a taxawee dañu war a taxaw entre le latéral de l'équipe adverse ak seen excentré bi mais souvent ñu koy gis par rapport à la position du ballon quant à Lamine il est en train de faire son championnat tey su may amee li may ñaax Moussa lay gën a ñaax pour que défensivement qu'il soit encore beaucoup plus présent défensivement parce que offensivement am na ko quant aux deux excentrés à savoir Diallo ak Malick tey il faut qu'ils prennent beaucoup la profondeur qu'ils acceptent les courses parce que quand ils jouent contre une équipe bi nga xamante ne supposée forte ñoom dañ lay jël mais yow léegi ñun suñu amee nañu jaawatloo di dem pour prendre la profondeur Malick ak Diallo quant à nag l'avant centre moom à chaque fois il faut que abattage mu leer il faut que nangu nekk tout beaucoup dans l'effort su Malick demee moom mu war a ñëw su Malick ñëwee moom mu dem ainsi de suite ñuy def le jeu de tiroir cest dire mu am lu ñuy wooyee cadrage coulissement cadrage coulissement mais tamit pour équipe bañ a dagg ñu gérer ce qu'on les intervalles pour équipe bañ ubbeeku ñu gérer les inter non les intervalles pour équipe bañ ñu gérer intervalles pour équipe dagg ñu gérer les interlignes mooy entre bi trois bi ak trois bi donc loolu suñ ko defee daañu mën a am un match équilibré te dañu sonal adversaire bi léegi nag benn bu des mooy il faut que l'on soit efficace devant parce que une finale certes c'est une fête mais les occasions on ne les vendange pas suñ ko amee nañ ko dugal. waaw tey jii wax wax nga ko léegi problème mu équipe bi moom ñëpp yaakaar naa même chose la ñuy wax mooy efficacité devant les buts tey jii est-ce que est-ce est est-ce niveau de la formation. parce que tey gis nañu équipe nationale A bi dafa am problème mu euh, tueur catégorie jeunes yi équipe locale bi est-ce que tey jii nii du problème formation. waaw euh, mën na nekk problème formation mais aussi tu sais que dans un projet mënoo amandoo lépp euh, lu gën a am solo mooy nga gis li lay gàllankoor nga liggéey ci donc ñëpp ñu ngi koy wax lu ñëpp wax je pense que comme li ñu olof di wax ku ndóbin rey sa maam foo gis lu ñuul da ngay daw. donc xam nañu suñu problème donc danañ ci gën a liggéey na yemul si avant centre tey numéro 10 tamit da raax un animateur mais loolu yëpp man je me dis est des projets yi nga xamante ne gaa ngi ciy liggéey parce que tey on a une direction technique tey soo seetloo si footballu Sénégal jigéen ñi ñu ngi gagné euh, local bi mu ngi final équipe nationale A bi dem na finaal euh, u yi ñu ngi waajal U17 yaa ngi waajal donc football maa ngi dox. léegi nag retour sur investissement mooy nu ñuy def ba doxal équipe football local bi tamit parce que tey soo seetloo si CHAN bi équipe bi ñuy coow Côte d'Ivoire seen championnat ñu ngi koy wane canal ak yeneen ak ñeneen mais lan la ñu ëppale dara ëppale ñu dara parce que tey soo sont les mêmes joueurs locaux ñoom ñoo nekk di jongante te gis nga ñun ñu leen di malmené côté infrastructure tamit ñu lancer un appel aux autorités ñu aider accompagner les dirigeants ñu mën a teg ay infrastructures yi nga xamante ne ñu méngoo ak ñun lu ñuy wut. d'accord toujours ci CHAN bi tey jii Algérie la ñuy joué ñëpp xam nañu moom mooy pays organisateur euh, donc dafay joué à domicile mais tey jii lan mooy point fort Algérie fan lañ ko war a mën a jaar. Euh, Algérie fu ñu ko mën a jaar mooy loolu laa lay wax nii mooy il faut que notre équipe soit organisée gis nga équipe actuellement je l'ai dit football dëkkatul fenn coupe du monde bi jox nañu exemple. les équipes les mieux organisées ñoom ñoo dem du bokk ci carré bi kon Algérie suñ ko bëggee gagné tey ñun il faut que l'on reste dans l'organisation déglu entraîneur bi ñu réceptif benn ñaar il faut que ñu nangu nekk dans l'effort nangu def les courses les courses yi nga xamante ni courses de placement de replacement mais aussi nangu di def respecter les transitions quand on a le ballon sur le plan offensif ñu nangoo dem jël profondeur bi nangoo daw si on perd on revient sous le ballon suñ ko defee si ci gàttal on va poser beaucoup de problèmes à cette équipe algérienne parce que c'est une équipe très technique une équipe qui a une bonne maîtrise collective mais une équipe qui sait faire mal loolu nag li koy def mooy bu ñu nangu jouer en bloc bas mais nangu alterner entre le bloc médian et le bloc haut parce que si on joue contre une équipe bi nga xamante ne en confiance bi nekk à domicile quand on quand il nous impose le bloc bas on risque de faire beaucoup de fautes et ça fera tache d'huile mais on n'a qu'à faire c'est pas évident mais les pousser à jouer le bloc médian alterner le bloc médian et le bloc haut. d'accord d'accord tey ñu gis ni euh, équipe nationale locale bi Pape Thiaw moo koy gérer moo ko moo ko donc euh, de plus en plus ñu ngi seet constat bi moom la ñuy wax souvent mooy que ni anciens joueurs yi. coach locaux yi ñoom ñooy nekk di yer sélection yi donc yow loolu noo noo gisee kii boobu noonu tendance boobu noonu. waaw xam nga gis nga addina bi man la mu wax ni euh, mondialisation globalisation moom moo nekk di feeñ que gis nga tey il va falloir que ñu am confiance ci techniciens locaux yi parce que gis nga tubaab yi ñuy indi tamit parce que gis nga si universel li ngeen di liggéey nii yéen tey tubaab bi dañ leen gën a xarañ li ngeen def la ñuy def donc man je pense que il va falloir que l'on fait confiance au à la xoolal aux entraîneurs locaux pour ñu liggéey tey man lan lay wax mooy génération 2002 les anciens joueurs les les les les les les coachs qui ont qui yu def académie c'est-à-dire qui ont fait l'université yooyu c'est-à-dire suñu leen coupler Sénégal mooy gagné parce que il faudrait que tamit les entraîneurs que ñu conjuguer xoolal ñu ñu doon benn. xàccandoo doorandoo Pape moo nekk ne équipe nationale na ko ñëpp yéene lu baax na ko ñëpp ku ko mën a oo téléphone sax di ko woo muy échangé ak moom tey loolu mooy tax football Sénégal mu mu développé xam nga mais c'est pas parce que Pape Thiaw moo fa nekk man nekkuma fa que non warul baax warul dox non gis nga àddina bi je pense que yàlla lépp da ko bind ci aras ku nekk sa wërsëg soo ci waree jot di nga ci jot donc tey Pape Thiaw moo nekk équipe nationale locale je pense que def na liggéey bu mucc ayib direction technique bi accompagner ko ñun ñëpp dañ ko war a accompagner yéene ko li nga xamante ni tey mooy may Sénégal ndax d'accord tey jii boo doon boo doon kii tey jii ce jour meilleur jour ci ci ci bi ci côté Sénégal kan kan nga koy jox. tey euh, Lamine Camara. lan moo tax. Euh, parce que au fet euh, c'est un jour qui progresse. c'est un joueur bi nga xamante ne soo seetloo si CHAN bi yëpp euh, c'est le leader technique en quelque sorte de l'équipe c'est le leader technique de l'équipe et c'est encore il il a une marge de progression énorme li ma koy wax qu'il ne dorme pas sous ses lauriers mu xam ni le pays ce pays là compte sur lui à l'avenir ça ni mën nañ ko xaar fii ak fii ak mois quelques années ci équipe nationale A waaw loolu kenn du ko décréter moom moo koy liggéey loolu Euh, xam nga Sénégal foog ñu bàyyi loolu projection yooyu souvent day génne xale bi si fourchette am na liggéey mu xam ni liggéey rek a wër a chaque fois muy delloo xelam fi mu jógee ak li koy xaar si kanam di ut repère ñi nga xamante ni fu ñu jógee woon ba fu ñu àgg tey gis nga àddina ku xa ku amul wéeruwaay ku amul repère doo sori donc repère yooyu dafa baax suñuy joueur parfois ñu xam tey jëlal un cas Sadio su xalaatee Sadio Mané fi mu jógee ak fi mu àgg rek moom dina xam ni dafa comment day door day door amagul dara defagul dara. d'accord.